Wait a minute! Wait a minute! Non, eh, non. Magum jalo. Dapat na rin. Ito kita. yaa ngi direct nañ demee salaamaaleykum aleykum salaam alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah Eh, salaamaaleykum Euh, ñu ngi lay di sant waaye euh, tànk yi tànk massaw nde ku ne ci réew mi metitlu na demu Baye Cheikh ñi koy ñi nga xam ne jàpp nga ne yëg nañ ko ak ñi nga xam ne jàpp nañu yëguñu waaye réew mi ku ne gis na jafe-jafe bi gis na métit bi nga xam ne nit ñi am nañu ko bi ñu yëgee euh, ni Baye Cheikh génne àdduna euh, metti na nag waaye yàlla moom mooy tege te yàlla lu mu teg jaam rek daf koy nangu euh, li nga xam ne am na kenn bëggu ko woon kenn nit yéenewu leen ko waaye jàppal ne ca la mu newoon walla la ko dal ma ngi ko dalee ci xare boo xam ne doomi Sénégal ñoom ñoo ko doon def Euh, ci loolu ñu jàpp ne ñun jaadu na ñu ñu ñëw ànd ak délégation bi ñu àndal ci tur gëm sa bopp ngir massawu la euh, massawu la nag ci lii nga xam ne moo dal ci sa kaw dal ci njaboot gi waaye jàppal ne dalul ci sa kaw yow dong ci kaw Sénégal la dal moo tax tànk yi ñu seq ñëw ngir massawu la ci lii nga xam ne suñu borom dal na ko teg na ko ci sa kaw di ñaan suñu boroom xaare ko aljana euh, boole ko euh, ci euh, aljana yi gën a kawe di ñaan it suñu boroom lii nga xam ne teg na leen ko mu gëj fi lool te it yàlla jaare fi def dal ci réew mi di ñaan yow it nga ñaanal réew mi ngir dal am fi masawu dal ak indi njaal moo tax ñu takk suñuy dàll ñëw Euh, ngir bokk ak yow tiis wi nga xam ne moom moo dal ci sa kaw jàppal ne Sénégal yëpp ñu ngi koy bokk ak yow. moo tax gis nga bi ma yëgee ne dama fi ñëw bi ma ko yëgee presse bi yëpp ñëw topp ñu ngir ñoom it taataan say kàddu waaye it nga mën a wax ak réew mi ñoom ñu déglu la xam ne tànk yi ma seq ba yegg si fii tànki massaw la tànki njaal la tànki mbokk la tànki doom la tànk la yoo xam ne jubluwuñ ci lenn lu may bokk ak yow tiis wi suñu borom teg la te xam nañu ne euh, dinga ko mën a tegoo ndax yàlla lu mu teg jaam da koy nangu te lu nit mënta xajoo suñu borom du ko ko teg kon nag ñu ngi lay ñaanal xolu muñ te it di sàkku ni ñu koy sàkkoo fépp fu ñu dem ngeen ñaanal réew mi allahuma salli ala sayyidina muhammad waaw dégg naa ndax Baye Cheikh sama Baye Cheikh la ah liggéey laa ko sant. ndax dugg na école dugg na alxuraan. jóge fa jàngi école. dugg fa def mécanique. seex. da doon liggéey. ñu boomu. yéen ak Sénégal yéen a tax jooytu ma. ndax suulu bàyyi seex. ba man mbooloo toppee. sa sa a muñ lépp. ndax addu yàlla moo moon bàyyi seex. yàlla moo jël bàyyi seex. kon damay sant yàlla. sant yàlla doo nga fi des. Sénégal nag kontaan naa Sénégal ndax xam naa ne ñëpp Sénégal yëpp jàppale nañu. ndax xam na ne doomu Sénégal la. ndax doomu Sénégal ba da doon xaar da doon dem di xare. Hmm. des àll. Hmm. jóoba juba gàcce galaama. yaa fa mu tëdd. Hmm. yàlla na kay suufu malaaka yi yërmadi taxawu. amiin amiin maa ngi ñaan yàlla. jaamu Sénégal. la El Hadj Abdoulaye daa wax. moo fi bu fi nekkoon bu fi daan nekk. danaan andi jàmm. kon man taal Serigne Seydi Djamil laa. kon jàmm rek laay woor ci Sénégal. lépp lu dul jàmm. Mhm. jàmm ko gën. maa ngi leen di ziare. Mhm. kontaan naa taxawu nan ma. àdduna daan ziare naa ñëpp. yal na leen yàlla defal jàmm. ndax man Baye Cheikh bu ma ko jooyatul Sénégal yi la ndax karoog ba may suuli Baye Cheikh mm. dafa noonu Dakar day yëngatuwaat waaye ba ma waxee sama kaddu mm-hmm. Sénégal yi xam na Baye Cheikh moo dee mm. karoog danoo taxaw jàppale ma Baye Cheikh kon amul dara la nga xam si ni mm. naqarate na ci Baye Cheikh alhamdulilah yàlla na yàlla def Sénégal jàmm yàlla na yàlla def Sénégal na jërëjëf am jërëjëf jërëjëf waaw lay sant bu baax a baax jërëjëf jërëjëf alors yéen a ko ee noonu ah, Bougane Gueye Dany dafa ñëwoon fi nga xamante ni moom mooy kër Baye Cheikh di xale bi nga xamante ni moom moo génnoon àddina fañele ñu daal di koy dóor bal ci li wax alors Bougane Gueye Dany dafa ñëwoon ngir jaale famille bi gis ngeen convoi bi bari waaye dafa mel ne a mujjee jur pëccëxoo ndax ñaa ngi dégg ah, waa koñ bi ñi ngi koy def meeting ñu fàttali leen tamit mi ngi noonu Bougane dafa ñëwoon jaale ji gis ngeen waa Malika ñu ngi noonu naan Bougane Bougane convoi baa ngi noonu gis nga